bon jour amis comment vous allez j'espère yi tey waxtaan bi leen rek la muy série jabar góor gi mais nag balaa ñu ci commencé ñu ngi lay ñaan si fekkente ne ngeen ngi seen bitaab négocié ñu ngi lay ñaan nga abonné te bul fàtte bés cloche bi. vidéo bi nag fi ñu si commencé dañu si ki ba Jeena ba Ndaw bi ool na ko pour waxtaan ak moom en tout cas Jeena ba xamal na ko am na benn waay boo xam ne daa ñëw fii si góor gi am benn waay boo xam ne da daan viol di ko tëddee di ko violé en tout cas Dieynaba ne ko naa bañ mu dal la yow en tout cas Kati ne ko loolu loolu lu sama yoon man loolu lu sama yoon jeene nga xam Dieynaba xamal ko ne ko ku daan def loolu mooy sa jëkkër Mbène Ndao en tout cas Kati moom mu ngi attaqué Dieynaba moom Kati attaqué na Dieynaba wax ak moom ne ko su fekkee na nga dof na ngay wax nit ñi parce que moom man xam naa sama jëkkër bu baax xam naa lu mu sañ ak lu mu sañut en tout cas Kati gëmu ko Kati moom gëmu ko moom. waaye kat nag jug na na ba dem waaye nag ki nga xam ne mooy nag ool na xale bi ool na ndaw sax pour moom jiitu ko si si ndaw en tout cas xale bu jigéen ba dem na jiitu ko si si mbedd si mbedd ndaw moom la may jiitu ko di waxtaan ak ki nga xamante mooy mbedd bi. mu jékki jëkk rek kat yi sonné kat dugg si biir si biir bunt ibi bunt bi dugg rek commencé ko sosol naan ko dem ko doon violé en tout cas kat yi dégg loolu ba digg gëm moom kat kat nag laaj na ki nga xam ne mooy Mbène Ndao na ko li mu wax dëgg la wala dëgg en tout cas Mbène Ndao na ko du dëgg waaye nag xale bu jigéen bi taxul mu bàyyi moom mi ngi wax rek naan dafa doon violé dafa doon violé ba waxal ko loo xam ne nii si néeg kii la nekk si néeg kat la nekk ba kat yi gëm loolu. en tout cas femme bi nee na ko su fekkente ne sa sa jabar moo taxaw moo tax nga fàtte lépp loo mu daan def en tout cas man bàyyi naa la ko yàlla. femme bi nag jug jug jug na ba dem waaye nag ki nga xam ne mooy Mbeth Ndao nag jaa jaaxle am tiitaange ñëw di jéglu ki nga xamante ni mooy Kati na ko kii li wax dara amu si Kati nag mer na ba dem moom Kati waaye Mbeth Ndao nag mi ngi jaaxle ba tey moom mi ngi jaaxle ki nga xam ne mooy Jeynaba nag Jeynaba ñëw fekkaat ko si fekk fekk ko si biro bi moom moom Mbeth Ndao fekk menn Ndao si bureau bi moom ba ñëw si bureau Mbeth Ndao mel lu koy ñaawal moom Jeynaba en tout cas Jeynaba xamal ko ko yàgg yàgg miraas bi samay samay samay doom samay doom ñoo ko moom moom jéene moo wax Mbendoo loolu en tout cas xamal ko ne ko en tout cas dinaa def tout pour miraas bi jaar si yoon jéene lu nga xamal mu ne loolu am mukk moom jéene moo xamal Mbendoo loolu noonu loolu du fi am mukk ba jéene ba junni ko ne rey naa benn rey deux en tout cas Mbendoo si loolu si rey bu mu wax si rey rey naa diw rey naa diw ndaw jaaxle si trop di ko laaj met ndaw na loolu lu ko lu ko jene bu wax loolu da ko yokk xalaat moom met ndaw lii leen loon série yi di jabar góor yi di leen ñaan si fekkente ne ngeen seen bi te abonné ko leen si ñu leen ñaan ngeen abonné te bu leen fàtte bés cloche notification bi jaa ngeen jëf